islaam bi gën a màgg ci nuyoo yi te mu di assalaamu aleykum wa rahmatullah ngi am xel mu dal di am mbégte lool ci daje bi yàlla eh, di waxee nag kàddu yoo xam ne kàddu sunu mag la sunu xalifa alxaaji ahmad Darame ci kër Sambara e, ma wuutu ko fi man ak sunu rak Cheikh Darame moo ma xamal ne Cheikh fala fajaroo jëm si fii ci ñaan bi ne ma soo demee sama kàddu jox naa la lépp kon luñ fi wax rekk kàddu la bis bi ku ne xam na ne Eh, daan na ko ci yu bari daan na fi ñëw di ko teewee di bokk ci ñi koy taxawee waaye mu wax ne ren daa xaw a jattu bëggoon na ko lool lool waaye jamono moo ko ko mayut te yaakaar na ne su ko waxee di ngeen ko dégg di ngeen ko nangu mu ngi ñaan ngeen nangul ko ko xat-xat la ñëwee trop fekkuma ko sax ci kër gi ñuy ñu ko boobu mu nga kër ma jabel mu ne ma nag seex ma nga fa incha allah da ngeen fa fekkante kon alhamdulilah bi ma ñëwee ba fekk ko fi e, ñu am mbégte comme ni ma ko waxee waaye di nuyu ñëpp mu taxa yaag say mag say rak yéen ñëpp Cherif ñu ngi leen di nuyu. nuyoo boo xam ne ci waajur yi ci kër gi fa lay soqeekoo ni ko waxee sëñ Muntaxa yaay Awa yaay Ayda kenn ku nekk ak njabootam ñu ngi lay nuyu di nuyu soxna maam Busa mi nga xam ne moo yëkkati téléphone ooma yëgal ma bis bi wutu leen ci ñëpp ak ay rakkam yëpp Can Saaxoog Aminata ak yéen ñëpp daal ñu ngi leen di nuyu di nuyu kilifa yi ñu fi fekk Serigne Jim Cissé xam ne seen dëkkandoo la di seen mbokk sëriñ Serigne du njaay ba tey di dëkkandoo di mbokk di nuyu sunu wëlëre sunu xarit bu yàgg alxaaji Cissé yàlla dogal ma fekk ko ci jotaay bi te du doon lu ma doon bàyyi xel ndax maa ngi defoon ne rek ma nga ci réew ma ndeke danaa ko fi gis kon alhamdulilahi rabbil alamin di nuyu sunu baay sunu nijaay Serigne Omar Sakho waaw ñëpp rekk ñi ci jotaay bi kii fay njaboot gi maa ngi leen di nuyu nuyub lislaam boobu eh, ni ma ko waxee lii dal na xel lii dal na xel ku mu dalul xelam xaw ma ci lan la sa xel di dale lii mooy azaaru mag ñu baax ñi eh, inna azaarana tadullu alayna fanzuru baadana ila al azaari bu ngeen bëggee xam sa eh, kilifa gi nan la meloon xool leen ci jeexit yi mu fi bàyyi ku fi bàyyi eh, sangu yu mel nii walaay sa àdduna caaxaane ko woon caaxaane woo ko woon nangoo liggéey nangoo jaamu yàlla gannaaw bu mu gëstoo boromam ba xam mooy kan mu xam fam war a féetee ci moom teg fa tànkam ne njaboot gi ñépp ñëw leen e, wañ loxo yi yëpp ñëpp ànd ak moom ba miin lim xam lim nekkoon kenn dootul dellu gannaaw mu soog a dëddu bàyyi leen xelam war na daal wax dëgg yàlla mun eh, eh, eh, muntaxa jërëjëf xat mu bii nga jàng mat na jot na rafet na dara sikku ci laa ayba fiiha li ñuy ñaan mooy yal na ko yàlla naw te am nañ yaakaar ji jàng nga xel mu dal ak dal gu wér ak settantal gu am solo bam noppi ñëpp teewlu ko am naa yaakaar ne dëppoo naag aminu malaaka am naa yaakaar ne sama borom nangu na ko yal na ko yàlla nangu te gërëm ko tam sax te yàlla gën laa dëgëral yokk sa xam-xam yokk sa liimaan yokk sa pas-pas euh, da ngeen tàmbali waaru woo xam ne nag soreegu leen ci tey jii kenn ku nekk ci ñi nga xam ne xamoon nañ góor gi ca lañ ko xamoon mel na ni yéen da ngeen tàmbali yàlla na ngeen àggal ndax moom nu ngeen mën a mel rekk moom moo ko def ci yéen te yéen defagu leen dara ci seen njaboot. naa mel na ni yéen ngiy góor góorlu mooy la bàyyi ñas waxoon taali taalibe ya dafa dégg ko naan Baye mii mu ëpp xam-xam baayam moo ko ëpp xam-xam mu toq ci noppam moo ko ëpp wilaaya Baye li mu xam kii fii bàyyi dégg leen ne leen yéen lu ngeen a wax maa ngi leen di dégg di sama Baye ngeen may tëkkalit xaar leen ba ma am ku mel ni man. waaw xaarleen ba ma am ku mel ni doom ji sama baay am baay baay baay du moroom waaw parce que liggéey loo gis ci doom rek bàyyi ca góorgóorlu xaadima jaxate kala dafa defar benn xasida réew mi yëpp xam nañ ko kilifa la woon jàngal na sax sëñ Tou sëriñ Touba kilifa la woon mu def benn xasida mu rafet lool doom ja tee xasida bi di ko jàng ba àgg ci benn bayti ne ko bayti bii de chatre bii de boo defoon nii def nii boo waxee woon nii day gën a rafet xaat yi boroom xam-xam lu mu xool bayti bi xoolaat ko xam ne li xale bi wax dëgg la mu ne ko xam nga lu ko waral mu ne ko ah mu ne sa baay daa amutoon baay bu mel ni sa baay seetlu sa baay daa amutoon baay bu mel ni sa baay loolu moo ko waral xale bi na ko dëgg la moo tax mag ñi kenn du ñoom ñu bàyyi xel na nag ñoom ñi fi newoon te yàlla baaxee leen yàlla du leen fi jëlee rekk mu jeex tàkk rekk ñu yem ci noonu déet fokk mu am albadal fokk mu am ñu fi ne doo leen xam nag illa qalilan waaye am na ñu baax ñu fi ne ci njaboot gi ci ñeneen ci ñeneen yàlla moo mel noonu benn mag mu baax mu ngi may nettali Mouhamadou Lamine Darame eh, ci xandulaay xam ne saalum saalum la waaye foofu la ko yàlla samp mu nekkoon mag mu féete woon mag ñoom ma alaaji Malick Serigne Touba alaaji Abdoulaye Niass ñoom ñëpp moo leen féetoon woon mag te yàlla joxoon ko wilaaya goo xam ne ñoom ñëpp dañ ko xamoon daan ko seeti mu am bis ñu degee fa julli jot mu ne alaaji abdoulaye noddal alaaji abdoulaye ñes nodd mu ne alaaji malik iqaamal mu iqaam déedéet waaw mu ne alaaji malik iqaamal mu iqaam mu ne alaaji abdoulaye siise borom jaamal demal ñu julli mu jiite julli gi ba julli gi mu noppi mu ne sëriñ Tuubaa yow ñaanal am ku ñëw ne ko li nga def lu tax nga def ko mu ne alaaji Abdoulaye Niass li tax ma ne ko noddal bépp niw bu nekk ci suuf dégg baatu noddam yàlla jéggal la dootu la mbugal alaaji Malick li tax ma ne ko iqaamal kàdduk iqaamam bu xasee jib ba baa mooy daaneel xëlimba gi bind bàkkaar dañ koy téye dootul bind ci réew mi ci biti réew mi fu ne bu xasee di iqaam fekk mooy daaneel kenn dootu bind benn bàkkaar moo tax ma ne ko bi iqaamal borom jaamal na kum jiite nga julli ci gannaawam sa yaram xaraam safara moo tax ma ne ko demal jiite sëriñ tuubaa nag yàlla dafa yàkkante nangu ñaanam moo tax ma ne ko nangu ñaanal moom buy ñaan rek yàlla nangu mag ñooñu nekkoon fi nag bul yaakaar ne yàlla jëlee ni leen fi mu jeex takk takk takk takk am na jeexit yaa ngi fi moo tax li am solo mooy góorgóor lu jéem a teg tànk fañ ne fañ tegoon seen tànk buñ tegee suñ tànk fañ tegoon seen tànk rek la leen yàlla mosoloon mu mosol ñu ci te na xam te yal na bëri ci ay gox yu bari bu ko defee ñu bokk di ñaan jàmm ci réew mi di bokk di ñaan jàmm ci réew mi di bokk di ñaan jàmm ci réew mi ndax seen ñaan moo ñu fi bàyyi ñoom kon ku am ku mel ni alaaji aliwu Sakho nekkoon fii ci kër gi ci parcelle gi daan fi jaamu yàlla jaamu yàlla yu wóor ñëpp jaamu yàlla yu sell nit ñu sell yi jaamu yàlla yu baax yi nit yàlla yi di ko fi daan fekk te boo ñëwee doo yàkkantee dem soo masee doxantu ba fekk ko sàndaga buntu màngaseem dangay fekk mu téye alxuraan wala mu téye kurus bëñ ba ngay njëkk a séen ah boo ñëwee bu ñëwee ci kër gi du nelaw mu ngi ci jàmm yàlla lu sell loolu mu nekkee ko fi te du ci boole wax nekkee ko fi ba xëy dem xam ngeen ne yàlla bu la liggéeyloo dafa fekk mu bëgg laa fay moo tax ñaan gi baax na de waaye tekkiwul ne ku fi bàyyi ko ak noo mën tollu jarulaañ akay ah ñaan dafa baax kaamil yi baax na wirdi yi baax na yaasin yi baax na lixlaas yi baax na ndax martaba la foofu ay maratib la ku ne xam na ne fii danga daje ku la mën nga am martaba bu kawe nga daje ku ëpp martaba ko daje ku ko ëpp martaba fële nag la la la gën a fesee nag waaw ñaan yi lay ñaanal dalay yokkal ay maratib yu mag yu kawe yoo xam ne ñaan gi moo la ko jotti rawatina ñaan goo xam ne ci say doomi bokk fa la bàyyi ko ci say sët fa la bàyyi ko yoo xam ne yaa leen teg ci yoon te la an yahdiya allahu bika rajulan wahidan xayrun min umrin min xumri naam boo fexee ba yàlla gindi kenn ci yow kenn kenn rek yàlla gindi ko ci sa sabab moo gën jàmm moo gën àdduna ak li ci biiram kooku ñaata la ci def man damay wax ne sama daara moo ma ko sampal samp naa daara ci wetam mu yëg ko jël njabootam indil ma jëm njaboot jël njabooti ay xaritam ay bokkam ñu bari indil ma te waxuma ci dara gannaaw ga laay toog ak nit mu ne ma man yàlla dogal na sama njaboot bu fi ñëw diw moo tax Alaaji Aliou Sakho moo ma noonu léegi am na ku ma ko wax moo ma noonu sa njaboot yët ko Mamour Dramé te réccuwuma ko kon mën naa wax ne moo ñu sampal sunu daara fii biñ ñëwee tumuraanke fi lool dugg ci kër goo xam ne xanuñ fa kenn du benn taalibe ne damay jàngale jékki-jékki taalibe yi ñëw te léeg-léeg mu jaaraan fa sànni fa ñaan ñun mënuñ koo fay moo tax bis bi fu ñu mënoon a fekk te mën cee ñëw duñ tagambaalu dañuy ñëw moo tax ñu ngi koy ñaanal yal na yàlla yokk leeram xam naa ne moos tatajaafa junubuhum an ilmadaajici yadcuuna rabbahum xawfan wa tamaan wa mimma razaqnaahum yunfiquun loolu ca la nekkoon bu gudd jotee mu sori lalam lu may def di jaamu yàlla teekurusam di ñaan yàlla lu tax mu koy ñaan ragal na yàlla ragal na yàlla waaye tamit yaakaar na ko boo boolee yàlla yaakaar ak ak ak ak ragal loolu mooy mooy mooy mooy mun dëgg dëgg dëgg dëgg dafa am ku mu seeti ci saxaabaam dafa feebar ñor ko ko mu jog ñëw bi ñëwee gis ko ne ko noo gisee sa bopp mu ne ko man maa ngi ci diggante yaakaar ak ragal mu ne ko bu ci jógee xaakasaa nekkal ci comme noonu rek bañ ci jógee jaam warul naagu ci yërmaande yàlla innahu la yey asu min rawxillah nga ko kon ngir mànd yàlla kenn du ci naagu lu dul ku nammati xeet yi koo xam dafa weddi yàlla yëlañ ci yàlla bu musal ku weddi yàlla rek mooy naagu ci yërmande yàlla waaye dégg nga bul naagu waaye bul ragal rek nag yàlla soxorul yént bi sax daf ne yasiru wala tu asiru wa bashiru wala tu nafiru waaw boo ci boolee yi ñu ci boole nag boo ci boole yi ci sëriñ bi boole woon alaaji Aliou di jàng alxuraan guddeeg bëccëg yor kurusam di tudd yàlla guddeeg bëccëg ah di wax lu baax du def lu baax di jubal ay nit kooku ku demul aljanna kan mooy dem aljanna hmm? kuy dem kon bu ngoog lii yëpp yokkal ko daraja rek la yokkal ko maqaama rek la yokkal ko ay maratib rek la yal na sax nag te nii ngeen ko defee nii mu simple nii amul benn folklore amul benn sorxole amul dara lu mooy yàllay kese ñu jàng ko fi waxtaan ci moom fàttaliku nit ñi ñu mën koo roy ah? loolu rek mooy mbir mi laneen laneen bokk ci lii rek la nañ ci sax comme nii waaw di ko fàttaliku di ko roy laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana mu ngo képp ku yaakaar ëllëg yowmal xiyaam ku fa am ku yaakaar yàlla yaakaar fa ca yow bis boobule royal muhammad muhammad nag buñ ko gisul xam na ñu ko roy ba miin ko ba jël jikkoom ñu ngi ci seen wet ñu ñun ñàkkuñu kon nañ roy ci mag ñi ti téye fañ téye woon addu alayha bin nawajis matt ba mu dëgër ñu continuer texe rek bu ëllëgee fu ñu dugg ñu dugg fa wa amanu wattabaatuhum zurriyatuhum bi imaanin alxaqna bihim suriyatihim wa ma aladnahum min amali mi shay ñi fi nekk gëm yàlla di jaamu yàlla di topp yàlla ba xëy màggat ca dem ba yàlla jël ci loolu bu ëllëgee fu ñu àgg seeni doom seeni njaboot dañ fa àgg parce que jaarale woon nañ leen yoon wa donte liggéey bañ doon digg liggéey ñoom amuñu kàttan boobu waaye bu ëllëgee fu ñu dugg yàlla dugal leen fa ñooy bokk aljanna abshir fa innaka maa man ahbabta yawmal xiyaama benn waaye dafa ñëw ci yonent bi di jooy ne ko man de dama laa bëgg lool te wax dëgg yàlla ma jaaxle ndax bu ma sañoon bu ëllëgee yawmal xiyaam foo nekk fa laa nekk ma dala xool da bànneexu ci xool gi da la gis da lool moom mooy sama bëgg-bëgg ndax la mu ne ko dama laa bëgg lool moo ko waral yent bi ne ko ab abshir fa innaka maa man absa ahbabta yowma alqiyaama bégal te xam ne bu ëllëgee yàgg ka nga sopp yéenay bokk benn place nit ki nag mënoo koo miin xam jikkoom xam xam wilaayaam xam xam fa tabarakallaahu mbaa xam ak ay manaqibam yëpp nga xam ko mu nekk sa xol ëllëg ngay wutee moom place kon na xel dal bu ëllëgee aljana la jëm ci suñu njort lu rafet ci sunu yaakaar ju dëgër ñun ñëpp fa lañ koy fekk ci kàttanu yàlla salaamualeykum wa rahmatulah ngeen baal ñu ak <coughs> nee na moom Mouhamed Darame bay alaaji Alioune Sakho ñett yi ñett yi moom ci la daan jàppee nit. fekkee bu fekkee ne yow gis na la nga nangoo jàng alquran. da waxtu juróom. da julli waxtu juróom yi. da liggéey. kenn mënatu bonal ci kanamam. mënatu laa ci kanamam. waaw ah, noonu noonu moom nu góor gi noonu la meloon. kenn mënatu laa balal. waaw. ngay julli. mu ngoog. wallaahi alhamdulilah rabil aalamiin. aha dëgg la dëgg la alhamdulilah jërëjëf jërëjëf barakallahu yal na yàlla fayal ñu ko yàlla